léegi moom équipe bu waa Thiès la waaw bu ma amoon sama benn waay dëgg yàlla ko moom moom mu ñëw jox ma ko pour ma jàppale xale yi daal loolu rek moom si Omar bi nga joué nekk joueur professionnel sa xel ne woon na ci loolu pour boo demee ba sa carrière bi nga ñëw jàppale see rek muy sant wala te nekkoon na sa xel waaw wax dëgg yàlla newoon na wax dëgg yàlla nekkoon na sama xel parce que may fàttegul 2017 man am naa diplôme entraîneur 2017 kon ça veut dire que bon man sama xel mu ngi ci woon bu ma nekkee di football sax yenn saa yi day am réaction yoo xamante ni day am ci terrain bi day mel ni entraîneur laa ba léegi kon nga xamante ni man loolu dama ko yàgg dund ba pare yàgg bëgg jàpp xale yi comme football bi moo ma yëpp moom il faut delloo ko ko waaw. nga gis tamit staff bi naan na ñëpp fi nekk nit ay Thiessois lañ ñoo ko ci mel ni suñu maanaam choix bi maanaam peut yaa ma neex la rek xool coach neex la sa xarit la nga dugal ko fi wala. ay lijaasa moo ko fi teg. déedéet déedéet du affaire bi yaa ma neex parce que man moom ku ma xam-xam ne moom man du ma dox ci loolu sax ay yaa ma neex mi man moom du ma ko kii parce que ñun waa Thiès lañ man il faut que ñu jéem a développer footballu Thiès ah buñ ci fekk nag ñu jot mais affaire bi yaa ma neex man du ma doxee noonu. choix bi nan nga def ba jël ñu staff bi nga àndal. ah staff bi ñoom fi mu nekk nii pour man ñoom ñoo disponible waaw te am na ay entraîneur ak bon am na ay joueurs yoo xamante ni yu soog a pare football la. gis nañ tamit ñëpp xam nañ ni club dafa métti frais yi comme jamono ji mën nañ ne club yi booy seet toujours ki nga xamante ne moo ko moom mën nañ ne moo ci gën a sonn lépp ci poosam lay jóge wala Omar dafa am ñoo xamante ne dañoo nekk sa ginnaaw non non instant bi wax dëgg yàlla kenn newul sama ginnaaw wax dëgg yàlla yeneen bi mais dañ koy sant yàlla rek gars yi dañuy jéem la ñun dañuy jéem waaw dañuy jéem la Omar team am na terrain wala dañuy duggee di entraîné wala waaw ñu ngi entraîné champ de course waaw monsieur le maire euh, di Dia Ousmane Diagne moo ñu jox terrain bi ñun fa la ñuy entraîné ah, bëggoon nañ terrain nag dëgg yàlla bëggoon nañ terrain mais nag dañuy def ndànk-ndànk comme comme man ren laa ko jël dañuy def ndànk-ndànk. mais chantre boo xamante ne la bientôt yaakaar naa ni da ngay bëgg ni ñeneen ñi def ñu jàmbaar fa nga teg sa bët ba xam ba xam ngi ci ñu ci dox nang nang ñu ngi ci waaw ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci wax dëgg yàlla ñu ngi def ndànk ndànk pour wut na sa fee suñu terrain bopp waaw wut nag ay ñu ñu jàppale waaw loolu amee moom wax dëgg yàlla ñu ngi ci dinañ ko gën a kii dinañ ko a bëgg affaire yi moom yaakaar naa ni métti na frais yooyu noonu yëpp moom xam naa ni war a yaakaar naa ni moom métti loolu yow mi nga xamante ni yaa ko def maanaam loolu ban motivation nga ci am toujours ngay génne nañ ne euh, amato amagoo lan dara dara duggagul quoi bi moom mooy di gis nit ñi di football man loolu laa ci gën a kii bu ma gisee booy di football rek man sama motivation mooy parce que man mii ni nga gisee ni chaque jour wala chaque deux jours ma dem football yi mm-hmm. dañuy dem ba Dakar di ma football ak yooyu loolu mooy bëgg-bëgg bi rek loolu rek moom moo passion bi moom moo mooy mooy continuer ba léegi dépense bi du ma ko xool waaw man moom du ma ko xool naa na booy yi football rek waaw. Omar partenaire yoo xamante ni tim am na partenaire yu muy liggéeyal wala yaa ngi ci. waaw maa ngi koy maa ngi koy wëri maa ngi koy wëri. Hmm. mais instant bi mu ñu benn partenaire xanaa ah peut-être sama. waaw fekk bi nga am tamit. <laughs> waaye xam nga xam nga duñ wax lépp tamit. Ah, waaw xam nga duñ wax lépp dañuy dañuy kii ndànk-ndànk hmm. waaw. da ngay xam ko lu yàq ku yodd ñu ngi ci ñu ngi ci parce que wax dëgg yàlla bébét bi moom après tim dama ko bëgg dañ koo bëgg a am na ay nit yoo xamante ne dama bëgg après ñu ci dañ ko bëgg a def comme nañ ko waxee ay yaay comme ñoom bu mënul nekk ay jàmbaar ak yooyu noonu ñu def ko li nga xamante ni dina ko tege waaw jéem a kii daal ñu ngi ciy mais ba yaa ngi jël booy comme di leen pré di leen dugal ci championnat bi maanaam jël say booy di roof beeg bi ak ndax jaayagul nga benn booy. non ñoom ñu ngi joué championnat ñu ngi joué division régionale senior yi ñu ngi joué ñu ngi compétit cadre yi ak junior yëpp ñëpp ngi joué ah tey ñoom ñooy ñoom ñooy wane seen bopp rek pour mën a a dem ci mais poste bi mi ngi diis daal gars yi nga lay ruux xaalis bu baax a baax. ñan ci noonu. non kay partenaire yi comme maanaam waaw waaw wax dëgg yàlla. million yaa ngi ñëw subvention bi ñëw moom. waaw boobu moom jot nañ ci. jot nañ ci waaw waaw. waaw mais dara dañ koy dañ koy dañ koy sant yàlla rek. xam nga fi ñu nekk moom da ngay jël rek dugal di def ndànk ndànk ndànk. donc autorité yi gën a ñëw rek jàppale ñi nga xamante ne ñooy doomu dëkk bi. waaw man fi may tëjee xam naa ni comme bokk nga ci sénégalais yi ñu nañ ne stade mythique bi nga xamante ne moo nekkoon Arsenal ñu koy wax Highbury bokk nga ci sénégalais yi fa njëkk a football loolu benn anecdote lay doon rek nga wax ko ne ñoom bëgg nañu football waaw waaw waaw may jiyee foofu xam nga man man Arsenal mooy sama équipe ah. waaw wax dëgg yàlla daje Thierry Henry waaw daje Thierry Henry Robert Pires ak yooyu dóoranteeg korpañ ah dóoranteeg mbagg sol Campbell wax dëgg yàlla contentement la. doon leen gis ci télé bi ñoom doon nekk fii di leen gis gis Arsène Wenger nekkoon fii gis Thierry Henry ci télé bi nga koy suba rek jékki-jékki rek. tase wàcc ay boy tase ak ñoom <laughs> waaw lu lu neex la woon wax dëgg yàlla parce que presque rêve la woon boo bu bu accomplir da ngay sant yàlla waaw xam ni lii ñaax xale ni ñëpp loolu mën na dal ñëpp mën na ñëpp dal ñëpp bu ñu ko gëmee parce man gëm-gëm laa mën ci football wax dëgg yàlla ñooy gën a ñooy gën a neex dañ na ba dix heures la dañ tëdd waaw musul dépassé loolu te kàddu gi mujj gi mën na doon Aladji Malick TV télé bu mag bi xam ne fi mu toll daanaka réew mi moom moom la gaa yi wax léegi kàddu yooyu mujjee wax ci boobu télévision nga xam ne xale yi moom lañ jox bopp di leen sant rek di leen bi ma gisee Aladji TV damaa kontaan mhm. bu ma gisee Alaaji Malick bi rek sama xol dafa set. mooy loolu waaw kon gars yi dem seetaane Alaaji Malick. dem abonné dem abonné. abonné ji waaw man sax tey dinaa abonné. waaw ah, ñu ngi ci 2 millions 200 fàttali ko gars yi ci ay M. après dinaa ñaari millions ak ñaar téeméeri junni. Ah, loolee dina boo ma waxee lépp kat du ma ko du may gis. attiration la pour gars yi gën a. gars dem na Alaaji Malick TV. waaw waaw man dinaa ci dem. jaajëf.